alors euh, Dame Mbodj yow yaay secrétaire général lu CUSEMS authentique dañuy ñëw euh, euh, bu jaar diggante bi ba Serigne Mbaye Thiam jëlee na ko indi na ko am ñuy bind ñaari yoon ne dafa nekk meilleur élève ñaaroon fii ci Sénégal yow nga dañ koy doore ci lettre ba ak naka nga jàngatee mbirum xale ak implication même ne Serigne Mbaye Thiam bokk na ko ci doon pare moom. jërëjëf man Diary Sow dama koy féliciter difficulté parce que xale bu ndaw la amul lu dul ñaar fukki at am niveau bi mu am nii te dafa liggéey ba àgg fa te kenn jàppalewu ko ci moo ci jàppale boppam moo ki waajuram mm-hmm. ku ci mën a jàppe da ngaa bàyyi ba ba ba lépp yemb nga dog ciy jàpp mooy kooku nga xam ne moom moo wax ne moom mooy parrain muy Serigne Mbaye man jàpp naa ne booy parrainé sax nga parrainé ku mënul dara ku at attanul dara ku xamul dara ba mu man ba attan loolu moo gënoon mais deful loolu daa fekk ku pare mu dem pare ne ko waaw léegi nag pare na ko ci ay intérêt ak ay politique politicienne parce que Diary Sow ci lycée d'excellence ba mu nekkoon lycée d'excellence bu Diourbel ba muy def première boobu ñoom seen école amul terminale boobu moom Serigne Mbaye Thiam la mu bëggoon mooy première ñu fexe ba lycée d'excellence gën a fës loolu moo tax bi ñu demee ba nga xam si war nañoo tànn meilleur élève u Sénégal il fallait ñu xool ay coppite yu ñuy indi ci ni ñuy tànne loolu la Serigne Mbaye Thiam def parce que munoo ci Jeux olympiques amoo médaille d'or wala nga am benn médaille d'or raw ku la ëppale ay médaille d'or loolu amul bu ñuy bu ñuy rawante dañuy seet d'abord ci médaille d'or yi te ci euh, concours général médaille d'or yi mooy premier prix ci premier prix yi la ñuy njëkk a tànn xool nu ñuy nu ñuy nu nu leen di nu leen di euh, classé waaw mais mënoo bàyyi ki nga xam ne dafa am ñaari premier prix ci ñaari discipline clé en science nga xam dafa am premier prix mathématique am premier prix science physique nga tege ko ne jël koo xam ne dafa am benn prix ak ay accessibilité yu mel ne noonu nga dajale ay points ne moo raw ko xel mënu koo nangu. kon bi ñu naan dafa raw raw. donc 2018 c' est l' élève Samba Khary Silla qui était le maire élève du concours général man samay wax bañu ma ku ma mere mais ku may mere mere ma ci dëgg dëgg bu ñëwee dama koy wax ak ku mën a mer nga mer. ku mën a kontaan nga kontaan ma taxaw man ci dëgg. donc li may wax mooy je n'ai rien contre man xaw ma kuy Samba Khary Sylla xam naa ko rek ci ay performance am mais mosuma koo gis xaw ma benn mbokkam du sama mbokk jaari sow mosuma koo gis du sama mbokk kon man ñoom ñaan ñëpp a yem ci man parce que man jàngalekat laa jàngalekat élèves yëpp a yem ci moom. mais nag bu dëgg taxawee nañ wax dëgg te yàlla tax Serigne Mbaye Thiam booba la mu ca bëggoon rek mooy fésal lycée d'excellence de Diourbel loolu mooy dëgg gi man li may wax mooy te boobaat am na sax yeneen yu fa xew ci concours général 2018 ba ci kanam tuuti man dinaa ko leeral. mais li ma bëgg a wax foofu xew comme kan lan moo non non ci duggagun Moustapha xam naa la xarañ nga lool mais boobu du ma ci duggagun mais maa ngi ciy def samay gëstu. te dina am leneen loo xam dinaa ko leeral ci concours général gëstu ñeel mais non maa ngi gëstu ci ay ay ay ay tappale ay tappale ay tappale danaa dinaa ci wax jox ko jaari saw non non non ko jaari saw mm. forcément mais am na daal ay tappale yu ma xam ca euh, ca ca concours général 2018 bi mm-hmm. pas pour xajamal mm-hmm. euh, euh, vraiment li nga moom la jaari saw def parce que jaari saw encore une fois mm-hmm. élève la bu xarañ luñ ko jox mérité na ko man awma problème ci loolu bi muy jël 2019 kenn waxul 2018 bi nag damaa wax man li ma xalaat te waxoon naa ko 2018 aussi. 2018 bañ ma laajee laa ne Samba Khare Sylla moom moo am deux prix en mathématique te mathématique toog nañ ay année yu bëri waxuma la premier prix de mais prix sax amul woon am na ay année yu bëri yoo xam prix mathématique sax la Sénégal amatul concours général. xas euh, ne serait-ce que comme dañ doon wax à l'époque que vraiment dañoo bëggoon kañ les sciences ki nga xam ni. moom vraiment wane na ne moom xarañ na ci science mooy amandoo lu jafe amandoo premier prix mathématique Amando premier prix science physique man jàpp naan ci contexte boobu kooku kenn nattablewul ni moo doon. mais kon li nga wax ni suñu sukkandikoo 2018 nekk ko woon mais 2019 moo ko doon. waaw 2018 2019 bi amul benn contestation parce que man damay wax ne dañuy compter c'est-à-dire bala mhm. yeneen prix yi da ngay teg d'abord premier prix yi parce que dañuy seet meilleur bi la ñuy seet. Mhm. kon bala ngaa classé yeneen yi topp ci meilleur bi mais da ngay classé ki nga xam ne moom moo nekk ca kanam mais munoo am nit am ñaari prix. ñaari premier prix nga tege ko ne dem classé koo xam benn premier prix la euh, donc loolu mooy poser problème dama la jox am exemple ci daaneel pour nit ñi comprendre gis nga boo demee Jeux olympiques su ab état amee boo amee benn réew boo xam ne am na benn médaille d'or moo xësee am médaille d'or ci discipline bu mu ko mën a am yow beneen réew soo fekkee ne amoo médaille d'or mënoo ko raw même boo amee ay médaille d'argent yu mat 10 médailles d'argent wala 20 médailles d'argent mënoo ko raw pourquoi parce que amoo amoo médaille d'or. amoo médaille d'or c'est-à-dire mënoo mënuñoo bàyyi médaille d'or. Mhm. di teg médaille d'argent looloo tax ma ne foofu jafe-jafe boobu Serigne Mbaye Thiam moo ko indi woon à l'époque mais jaari du ci dara et j'en pour dire aux sénégale yi nga xam dañ ko mere fan yi que jaari saw doom la jaaw jaari saw rakk la jaari saw jarbaat la te dafa méritante li mu am nii da koo mérité kon nit ñi buñ ko mere ci li mu def am na droit sax choisir ni arrêté na jàngam mais li am solo mooy kuy mere na nga mere ki nga xam ne moom moo nekk nii rëj ci mbir mi di politique di politiquer Euh, carrière xale bu jigéen bi nga xam ne moom xamul dara tout tànk la. kon nañ ko comprendre mais xanaa looloo tax nga ne moo bind lettre bi. non lettre bi échange la bu mu def ak parrain moo tax sénégalais yi dañoo gis ni yenn sénégalais yi wax dañ ni Diary saw dafa wone ni yaruwul parce que ñëpp a ngi doon tiit. mu pare ne yéen jëruwoon ngeen di tiit man maa ngi sama jàmm wane daal ne moom gërëmu leen ci ni nga xam moom la nit ñi comporté woon ñoom loolu la ñu wax ñoom sénégalais mais Diary waxul ak yéen. Diary Sow bindul lettre sénégalais yi loolu foo ñu leeral ko Serigne Mbaye Thiam la doon waxal nga xam moom nee naay moom mooy parrain moom la doon bindanteel lam bindanteeg ak moom lañ génne ni lettre la loolu mooy dëgg looloo tax ci biir mu koy wax tonton di ko wax tuy di ko tutoyer parce que ñoom ñaar rapport boobu lañu am mais wax dëgg yàlla am nay passage yu fa choqué sénégalais yi man d'accord na moo lay war ni toujours manipulation Serigne Mbaye Thiam parce que moom moo ko génne alors loolu bu ko liiree moom ci bu fekkente ne les mêmes standards culturels lay lay sukkandiku moom waroon na ko choqué moom tamit ba dana ko génne sax même bu ko naroon a génne dina dindi loolu mais defu ko dafa dem ni ko pays sénégalais yi Sénégal yëpp fi mu toll danoo mere jaari sow ma leen di wax ne buñ ko mere xale bi du ci dara deful dara am mag boo xam day gérer carrière politique am moo fi nekk utiliser jaari sow pour gën a fës ci président Macky Sall pour woon président Macky Sall ni ko la nga defoon ci lycée d'excellence baax na mu jéem a def euh, aussi di neexal ñi nga xam ni euh, dañuy kañ Sénégal pour mu dem ci question genre yi yooyu mooy li tax Serigne Mbaye di def li muy def nii kon nag kuy mere mereel mag ñi utiliser xale bi